وأتبعهم حتى تفعل السيئة يو نياوتيفو الحسنة يو تمهوها دون كفر وخالق تنغ أندن تيك تنغ جيكو تيك الناس نينا بخلق تجيكو حسن جرفت رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حد حسن صحيح حديث بي نتلي بدنجي تدو نيار ño xamne ñoko kenn ka di Abu Dar kenn ka di Abu Dar nak nonu day dàkkante la waye mi ngi tudon Jundub ibnu junada mom sahaba bu siw la bo xamne nenañ sax teel naa lol mo ñeuk nuyo bi nuyo l'islam bi di alaykum ak muhad ibnu Jabal mom mo gëna siw mom ngeen gën xam dañ ko da dàkkante la nak Abu abdurrahman bu abou Abu Dar moom aw dàkkantelam la gëna siwé bu dee Muaaz turam dëgg-dëgg la gën a siiwee ñoom ñaar ñoo nettali xadis bii xañ na yonent bi da koo dénk kenn ka ka fa des teewoon fa ñu bokk ko nettaliwaat waaye daal nee nañu yonent bi daa waxoon ne na nga ragal yàlla foo mën a nekk boo xam dangaa wét moo xam dangaa ko foo mën a nekk daal na nga teewlu yàlla ragal ko ragal yàlla nag mooy nga wut ab barrage boo xam ne mooy dox sa diggante merum yàlla ak mbugalum yàlla moo la koy fegal barrage ba nag mooy bàyyi li la yàlla tere di def la mu lay diggal loolu mooy barrage ba ragal yàlla moom la yàlla dénkoon ñu njëkk ña ak ñu mujj ña nee na wa laqad wassayna alladina utul kitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaqullah boobu mooy dénkaan bu njëkk bi ba ci topp mooy wa at bihi sayyi'atan xasana tamxuha saa yoo defee aw ñaawteef ginnaaw doomu aadama faaw muy jàdd léeg-léeg noonu la ko yàlla bindee saa yoo defee aw ñaawteef na nga gaaw tofal ci aw lu baax yiw woowee dana ya dana far ñaawteef wa maanaam boo defee aw ñaawteef rek na nga gaaw teg ci lu baax yiw mu far ko ba ci topp mooy nit ñi na ngay ànd ñoom di jaxasoo mooy ñoom ci jikko ju rafet fekk jikko ju rafet moom yonent bi yàgg na koo dénkaane lool yàgg wax ngëneelam ak màggaayam nee na ñi gëm yàlla ñi seen jikko rafet ñoo gën a matale li ngëm yàlla maanaam nga xam ne gëm nañ waaye dañ caa boole jikko ju rafet ñoom ñoo gën a matale ak ngëm nee na waat bu ëllëgee yamal ñi nga xam ne ñoom laay gën a bëgg ñu gën maa jege moy ñi gënon rafet jikko neewon na yit jikko ju rafet day bu ëllëgé bu ko pécé ci balaas ya bu ñi pécé jëfi jamm yi dana bok ci ye gëna diis ci balaas ya nee na woon ki gëm yàlla jikkoom bi rafet rek dara ci jotté dara jey ki nga xamné day woor ak naafila dana ci dara jamm kon hadith bi ñett ndénkaan yu am solo la yo xamné ne bi bu ko toppee di ko jëfee rek dana ci amee yiwu àdduna ak àllaaxira bu njëkk mooy ragal yàlla foo mënti nekk rek moo xam da ngaa wét moo xam da ngaa nga ragal ko bokk na ci liy dimbali jaam bi ci ragal yàlla mooy fu mu toll muy def ci xelam ne yàlla nga koy gis di ko bàyyi xel ndax maa yakunu min najwa min salaasa illa huwa raabi'uhum wala xamsa illa huwa saadisuhum wala adna min saalika wala aksar illa huwa maahum suñu borom moom jaam bi fu toll rek ñu ngi koy gis di ko bàyyi xel loolu nag bu ko nit ki bu ko jaam bi def ci xelam dana tax bëgg mu bëgg yàlla ba du def lu yàlla araamal te it dana def la ko yàlla digal maanaam daal dana ko ragal ci biir ci biti buy dëkkal loolu ci am xelam ba topp ci dénkaan bi mooy saa yu defee aw ñaawteef jàdd mu gaaw def aw yiw ngir yiw far ñaawte fa ba ci topp nag mooy jikko ji rafet moom moom lañ moom lañ mujjoon a wax léegi